waaw non comme fee bi rek li nga xamante ni moo ci ëpp solo parce que am na ñoo xam te dañu xam mooy booy Malika dinañ dégg coow li mais duñu xam lan la. Euh, dégg naa ne dafa am bal boo xamante ni dafa nekk sa naka la demee ak lan la lay def ak lan moo la ci metti waaw dafa am bal bu nekk sama yaram déer sax yéen bi ngeen ñëwee fekkoo leen ma fi fan laa demoon quoi suma rendez-vous waaw parce que dama demoon rendez-vous demoon defi rajo tamit war a defaat scanner wala xoolaat sama groupe sangem quoi pour pour que mu mën a def sumay préparation ovère affaire yooyu noonu quoi si laa nekkoon ni boobu léegi d'ailleurs sax suba dama war a delluwaat fan incha allahu rabbi waaw affaire yi ku ne xam na ne ni mu demee mooy que dama weeru koor la woon dama ba wàcc. dem waaw bi dama demoon liggéey ba wàcc di jëndi ndogu si la ma loolu noonu arrivé si lañ ma bi ma jënee ndogu ba ñibbisi si lañ ma agressé door ma bal si dënn quoi. ñoom da nga doon jàmmaarloog ñoom ñu dóor la bal wala dañ la romb ak dóor la bal bi. non dañ doon nekk di discuter comme ak comme des fois agresseur ni ñuy def rek ni ñuy ni ñuy def rek comme des fois da nga gis ñoo xam dañuy ñëw arrêté la di la laaj ay affaire yaa ngi dégg pour jéem la gën a mën a dugg pour xam pour am ci yow accès daal waaw dañ doon waxtaan. yaa ngi dégg ci biir ci biir wax boobu noonu ñu may poser ay question may avancer parce que dama xam ne li ñuy wax amul bopp amul genn nag si lañ dëggalee seen bopp ma nit ma dëggal sama bopp parce que góor gu nekk góor nga quoi si laa bagaar ak ñoom mu métti si ñoom ci lañ ma dóoree bal quoi wax dëgg yàlla. après bi ñu la dóoree bal moment boobu dina la dóor bal bi dem wala dina la dóor bal bi jël li nga jot a wala. waaw bi ñu ma dóoree bal parce que ñoom dafa am ko ki ma doon xeexal dama ko dóor ba mu daanu ki nekk ku toogoon ci histoire bi moo ma dóor bal quoi mais après nag. bi ñu jotoon na ñoo wàcc moto bi. waaw. mais keneen ki nga xamante ni moom laa doon dóor ba mu lii pour songaat keneen ki keneen ki ma doon dem di songaat kooku moom ma dóor bal mais keneen ki ki ma ki nga xam ne dóor naa ko ba mu wàcc moom daf maa féete ginnaaw këdd ma bi ma këddee nag si la lonki bi ñu daw yëg ci scooter bi jaar véden bi dem seen yoon.